yéen euh, da ngeen di bàyyi état souvent maanaam da ngeen di joxe après di xaar pour rentrer seen ay fonds. voilà premier ministre Ousmane Sonko joxe na ordre ñu jox leen li ñu leen ameloon. jur na coow nag am na ñu ne euh, tàmbali na am na ñu ne euh, kàddu yu méngoowul ak li nga xam ne mooy la réalité la moo ciy dëgg fi ñu toll nii nii. coow li yëpp jeex na ah 41 milliards la woon 500 dugal nañ 41 milliards 100 151 millions. wala dara desatu ci daanaka. kon coow li jeex na. Mm-hmm. coow kay bu ñuy coow. fay nañ fayuñu ba fay nañ. Mm-hmm. loolu waratul am coow. mais li des nag. oui waaw mooy campagne en cours bi.